dem kër kenn samay copine aw ma copine man aw ma copine aw ma xarit aw ma àndandoo dee ma dikku ma ipo rek rek rek rek moom ma ruuxu ba dugguma mais c'est fini parce que j'ai ciblé tout le monde je dis pas de nom mais ñenewoon ci mariage bi yëpp ànd ak man ñëpp laa ba tout le monde sans exception banaa ñëpp ba ci garab ba yëf leer ba kàtt gi leer banaa ñëpp ba kàtt gi leer sama baat ci kaw banaa ñëpp ba kàtt gi leer ndax danga lay woo téléphone di waxtaan ak yow di jël say wax di ko yóbbuwaat mais dama meilleur banaa ñëpp du maaraañes moo ne woon bu ma bàyyi sama ticket lawbe maaraañes man na bu daaj ne naa bàyyi naa ticket defuma dara defuma dara waxuluma defuma tous mais pour plus de sécurité bàyyi naa ticket lawbe publiquement dama koy wax ñëpp dégg ko ticket lawbe bàyyi naa ko bàyyi naa public su bongo maan bàyyi naa ñëpp am ay doute man dama nekk Einstein nekk dama dama dama nekk nante quoi man nante laa te duma tooñ nante laa dama nekk nante nante bi mooy fenn laa nawee ci ke mooy ànd naag sumbul ba sumbul moom ñoom ñoo àndatuñu mais musul toog yàq deru sumbul sama kanam <coughs> musul toog yàq deru sumbul sama kanam loolu moo tax ma naw tike parce que mënoon nañoo ne ma nabu sumbulu lii sumbulu lii sumbulu lii mais mus ko def nekkoon na kër sumbul musu ko def donc nawee naa Tické Laobé côté boobu noonu du wax nekk ko yàq der non mais tam tax may bàyyi Tické <coughs> c'est pour le bien de pour le moment ay Tické ay kii yëpp géwél ak waxtaan ak bongo tam nekk sama bopp bi pour le moment dama yor sama marque intimement aw ma temps wu toog waxtaan mbeeraay j'ai pas le temps là pas le temps ok maintenant comme j'ai pas le temps je ma marque et ma communication et de mes su ma amee doom dans set mois, wii mois, 9 mois et demi, non, peut-être dans 11 mois et demi, 12 mois, donc dans 8 mois et demi, 11 mois et demi, bu ma amee doom non dans 4 mois et demi ah, man man man maa ngi si équipe nationale bi bu ma amee doom ma woowaat leen ñu ñëw bu ñu bëggee ñëw dañuy ñëw ba que man dama leen sama xew damay teral ku ma woo nga ñëw ku woo ñëwoon naka mën a teral donc comme ñoom teral xaalis la su ma amee xew ma ñëw ngeen ñëw ñu waxtaan ma teral leen comme d'habitude mais pour ñuy ànd chaque jour di dem nii non non moi j'ai pas le temps moi j'ai pas le temps moi j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai je dois voyager avec mon mari on doit aller récupérer notre argent qui est bloqué là-bas en Sierra Leone parce que j'ai tout gâté le mariage le marché là j'ai tout gâté donc là je vais je vais en de reprendre le marché pour que les milliards reviennent que je devienne milliardaire donc j'ai pas le temps d'accord j'ai pas le temps Donc, moi, je laissais Tikalobe, je laissais tout le monde parce que je n'ai pas le temps et je ne veux pas que mon nom soit mélangé les détails. Nabouma wax nabouma. Comme Tike Matak Mouham Hippopotame, te xam naa ne ñoom ñaar déggoon nañ parce que bu ma Tike woowee naan ma daf may conseiller ma bàyyi ko si la comprendre ni que waxtaan baa ngi jaar ci suuf am na beneen tuyau de communication bu am entre ñoom ñaar et comme l'ami de mon ennemi et mon ennemi Tike Laobé tu parce que tu es l'ami de mon ànd day sincère ku ma ba danga war a ba mais comme bëggoo bàyyi bëggoo bàyyi hippopotame ñu déggoo ci suuf di waxtaan ci suuf te dama ragal man jigéen ànd jigéen dama ko ragal de base donc sincèrement honnêtement na mu ñëpp bàyyi Tike bàyyi ma Papichou bàyyi ma hippopotame bàyyi ma ñëpp bàyyi nañ ma man soxlawuma kenn ku dul sama yaay ak sama jëkkër ku am jëkkër bu mel ni deux tonnes looy doyee ci xarit na waaye looy doyee ci xarit ku am jëkkër ingénieur yow looy doyati xarit eh looy doyati xarit déggoo ba de ku am jëkkëru ingénieur ci miim réew yow looy doyati xarit ma ne lu may doyati xarit doyuma xarit daara sama yaay kaa yi suñ suñu kaa kër dafa bëri kaa suñu kër rek kaa la chaque jour dañoo am kaa yooyu suñu biir je préfère régler les cas de ma maison gérer mon foyer et mon fils que nekk ci ay langu jigéen man bu xew ba tey peut-être deux fois laa gis la Lawbe deux fois la ñëw sama kër deux fois te xam naa ni moom fa lay yem parce que man awma temps damay liggéey damay liggéey awma temps tu vois donc maa ngi moom du nekk nekk duñu misuñu duñu fréquenté wante maa ngi Tické mariage mariage la ñu gisante Soumboulou moo tax ma xam ko Soumboulou bàcc li moom ma présenté Tické boobu ba tey benn yoon laa ko gis à part ça ñëwoon na sama sama mariage ak sama ex jëkkër Mohamed mbay ñëwoon na ma teral ko ànd ak mbaaco à boobu mariage bi laa gis mariage bi nag def si daf ma ci bëgg lu bëri moo tax ma téye ko parce que sonn na ci waaye man tam sonn ci ndax joxe naa samay ginaar et puis organisation Tika Laobé moom waxuma la zéro faute de waaye bu doon am na leneen lu di zéro moom da ko ciy teg. organisation ci galaw bi baax na de mais dangay préparer say say baat préparer yuuxu yi préparer mer gi contrôler sa bopp parce que vraiment lu ko neex lay def heure bu ko neex lay indi añ bi reer yi lu ko neex organisation daal maanaam organise baraan yàlla daal yàlla na yàlla may daal mu gën a mën a organiser mën na organiser de waaye ku ko préparer say baat ak mer déggoo bare la xewoon sama mariage yëpp caméra yi sama kër jël naa ko damaa toog sama jël sama temps di observer di dégg ci laa gis coalition hippopotame ak ticket long bi ak sœur hippopotame bi nee nañ dama def yow yaay collaboration pour daane sama gouvernement mais tuuti nañu man may king man maay king kullu jigéen buy dox sa fii Sénégal képp kuy sénégalais fii nekk sama morom maay sa king ànduma ak yéen ci aadama ànduma ak yéen ci awa bokkuñu env man bokk maa gën environnement bokk maa gën lu dul woon sama xew mi ngeen ñëw sama xew mi bokkuñu jëmukaay bokkuñu ñu ne parce que mënumaa waxtaan ak ay président bu pare bokk ngeen langue mënul nekk seen langue langue mbeeraay la langue xapp la moo tax man xew ma xew laa leen woo ñu langue xew ma jeex ku ne seen kër parce que yéen ay xaritu langue xew ngeen man dama am bëri plusieurs xarit am naa ay xaritu langue xew am naa ay xarit dem cooki am naa ay xarit réseaux sociaux am naa ay xarit client man awma xarit nii sama xarit la Non, c'est mes copines de Mberaï et de Ambiance. Man, dama dama dama dama direct te ragaluma mindeef te ragaluma attaque déggoo ma ma ragaluma attaque te xam naa ni dina am ñu ko conseil pour mu tontu ma parce que nii parce que naa parce que loolu mooy métier am dama ci tale di wax di tontu nit ñi mais dama bëgg mu xam balaa mu dem TFM toog di fa wax wala balaa muy dem beneen di fa wax man nee naa. koo yow ci keloo bi koo indi sama kër teral naa ko ki may jàpp mais bi nga ñëw mu jàpp cent mille laa ko may yow sama xeemu yëpp sama samay orange ma ne barki démb Ndiaye laa la orange ma ne parce que ku ne vingt cinq mille ku ne trente mille si fii fi réew mi toll preuve yaa ngi nii wax wéef yaa ngi nii si man lépp a ngi nii si man saa yu ma la gisee ci keloo bi teral naa la sama xew ñeenti yére laa la may doyu la nga dolli benn muy cinq yére yére bu ci nekk cent cinquante mille lay jar te soloo ko sama xew ndax dama la ko may pour sama xew mais soloo ko sama xew ñaana nga ko sol sama xew dangaa préféré sa ko xew keneen mais man I mind man amu problème man néglige laa man man kii kii laa quoi man nante laa nante sonnul mais xoolal bu ma gisee xam nga dafa am ñooy toog di wax si télé du dem dara du la fekk man su ma gisee nga toog mën nga toog télé nag wax nag loolu fekk ci man parce que loolu nga xam ci man mais su ma jéemee soo jéemee dugg ci guerre bi naan da ngay wax da w da ngay jéem a takk sama der wala ma yàq wala dara yow xam nga société xaw ma ko xamul société mais yow xam nga société xam nga sama jëkkër lu mu capable récupérer la yow ak sa groupe bi yëpp daf ma ko muy dara tëj leen yeen yow Papichou ku ma si gis xanaa nga waxal ma li nga ma xamal mooy lu baax nga ma xamal mais boo leen jéemee dugg di gaaruwaa di géer ak di géer ak man sama jëkkër laa yow fa leen nañu jël si leen man di nga xam naa sa koy te yow doo ma rëcc ci dëkk bi ndax yaa ngi chaque jour yaa ngi si plateau télé yi di war di interview rek xam nga loo interview ma jeex yaa ngi interview rek ba tey noppee ko ku ma ci dégg sama sama kaa xoolal benn camion laay ut rek tourne tour bi rek récupéré leen si gëm ma sama yaay ba am dëgg asama ak yéen ñi nga xam ne bokkuñu aadama bokkuñu awa dara boole wuñu dul àddina ak caaxaan donc ndax ay géwél ngeen dan ma leen teral kii lawbe la ko ndax sama lawbe la ala sama lawbe nga yow mais dama bëgg nga xam ne que àdduna koo ay mbokk doo ko jëw Tické te nit bu la jiwee teraanga da nga koy jëloo teraanga googu ndax yow loolu nga woote da nga woote sincérité te boo sincère dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg demal nga delluwaat ci sumbulu ndax loolu mooy sa wareef sumbulu amal na la njëriñ ndax moo tax sénégalais yi xam nga boo bëggee dégg dëgg yow tikke tey tey laa lay wax dëgg xoolal ni ngay def ni yëpp amul sens dem ci plateau télé yi di wax di kii di kii di dara nii di la ràng danga dama tikke tikke yow lu ñuy fans yow à mën nga am ambiance kaf lu ñuy fans yow yow sénégalais sumbulu bàcc li man man sumbulu moo tax ma xam la sumbulu bàcc bi bàcc simpere moo tax ma xam la bu du woon sumbulu du la xam sumbulu moo tax ma teel a ndax sumbulu nekkatul ak yow mais damaa jël intérim bi mais fi mu intérim bi dagg na dellul ci sumbulu bàcc li seen ànd mooy ànd bu sincère ndax sumbulu moo la mën mënul mënul xoolal yow ni ma nekk trois mois nekkuñu ko ma ak yow mag ma ak yow suñu mariage ak léegi suñu nekk ma ak yow ñi matul trois mois ay 20 jours 30 jours matu ko peut-être ay 20 30 jours ndax man am naa léegi un mois mariage peut-être jours la mais supporté wu ma sa comportement parce que da nga ëppandi da bëri wax xam ma looy wax réglé woo te booy génn sa kër doo xam nooy solo da sol solo bu vulgaire te man bëgguma jigéen bu mel noonu jigéen da ngay sol lu rafet sexy comme nii mais nga cadré sa sol da ngay sol sa kanam sa dënd bi yëpp sa ay ay ay ay décolleté yu grave te yooyu man amoo wenn sax li ma jaaxal man maa moom décolleté ndax man na sama yaram amul benn maa ngi nii. la reine du de c'est moi c'est moi <laughs> nit dangay xam sa bopp booy génn nga xool sa seet xoolewu sa ba xam rafet na wala rafetul fashion du ambiance ay couleur fashion mooy nga génn ñi naw li nga sol mais ni ngay solo il faut nga dem sa doom ndey sumbulu mu conseillé la nga retourner si sumbulu parce que mënoo nekk sama doomu ndey ndax maa ngi yow jaaruñu fenn yàgguñu fenn man awma doomu ndey xam nga ku ma am sama yaay ak samay rak ak sama jëkkër ci société awma doomu ndey awma doomu kolema njaaroo awma tous ndax làngu jigéen bi Sénégal man sama ko peur j'ai peur ndax dama leen a xam ndax kenn si yéen ñi ñuy wax ñëpp kenn si yéen amu si jëkkër ingénieur kenn si amu si entreprise kenn ci yéen xamu si lan mooy entreprise kenn ci yéen ci fay salaire kenn ci yéen amul si li ma am kon ku amul la ma am parce que dina ànd ak man ci yàlla rek a tax déedéet. ànd bi yëpp morning moo ko lal te man damay maye morning amul problème man damay maye morning amul problème mais du ma dof booy maa nga nekk naan te yéen ñëpp ay dof ngeen ndax dof weesuwul nga war a toog jël sa life en main xaayit faayit ngay wër si télé yi di wax te yow télé yi pour personnalité yi de télé yi dañ lay utiliser man waxoon naa ko tijjee actuellement sa tur am na fu mu egg ndax ba nga ñëw ci man ba tey dangaa gën a siiw tike yow dangaa fayoon tike loobe xam nga yaay law ba yaay taal ni ñi man ñi maa la taal ndax sa lant yooyu sama xew la réeree cooli cooli mana man maa am bayri bukki bi keneen yoru ko déggoo ma de bukki lëmb sama kër c'est moi musoo am musoo am buzz déggoo ma de keloo bi man maay laay fajar teel 3000 personnes taxaw yow boo ne la ngaa ngeen am tiktok bi ngay nekk lu ne lu ne ngay def lu ne ngay def pour am live ak vues mais amoo ko parce que sénégalais yi xamuñu la Nabou Dash lañu xam déggoo ma de nobody know you baby girl I'm the boss baby I'm the boss man la may boss bi déggoo ma de déggoo ma de man quand tu es avec moi dangay sincère boo sincèreul duma la weer mais damay wax li am pour boo toogee naan nabu sama xarit la ñu naan déedéet nabu waxoon na la gi bàyyi na la man bàyyi naa la ba keroog ngay changer sa comportement parce que dama la bëgg donc distance day may ñëpp xalaat jëlal tuuti distance nga toogaat nga xoolaat sa bopp man ma toogaat ma xoolaat sama parce que ànd boo gis il faut que ma te nga dellu nag <clears throat> ci sumbulu <clears throat> parce que sumbulu bëgg na la te yow danga bëgg sumbulu te da bëggante. man mii maa amoon meilleur ami mais yow Tiki am nga meilleur ami Soumboulou am na meilleur ami man mii maa amul meilleur ami man amaguma meilleur ami maa ngi war sama meilleur ami ba tey amaguma am naa meilleur ami nag sama mère surtout mami mami sama mère am na mami ça fait des sept mami huit ans laa ko xam mami lu ne laa koy yeex mami mami mii mii sama mère am mami sama xew ñëw na lu ma xewlee mu ñëw ak Gabriela Kane fi ne voilà am naa mère ami Gabriela Kane yaay sama mère ami veux-tu être ma mère amie Gabriella taa xale Gabriella kan mii mooy sa mère ah, parce que li muy defaan laay defaan ministre des sociaux yi ministre sociaux yi Gabriella yor na xaalisam elle est belle du ma ñaanee dara Gabrielle mënu maa soxoree dara parce que elle est belle je suis belle am na xaalis am naa xaalis elle est intelligente intelligent nit dangay ànd say nawle man ànd naa ak samay nawle Gabriella Kane Gabriella Kane yaay sama meilleure amie Mami Ndiaye yaay uh, <laughs> eh, stop beefing with just everyone. Mais en fait, yéen vous êtes malade. yéen yéen en fait vous savez quoi le problème des sénégalais mooy day gis dëgg di ci teg tànkam man melu ma noonu ticket defuma lenn lenn lenn lenn mais man maa jël sama distance ak ticket mais am naa ci droit quand am naa droit jël sama distance ak ticket lawbe parce que ticket lawbe la te moom. si milieu programme lay nekk man damay liggéey je suis dans le milieu professionnel mais mag moom ñu ore man heure bu muy yeew man keroog woon naa ko fii ay huit heures est-ce que jël na tigi dina yeew sept heures du matin man su me réveille à six man liggéey moo tax sam sama jëkkër yóbbu ma si fànn léegi man nan laay mën a ànd koo xam ne man kooku day wër di programme man may liggéey mun amuñu bokk ñu yoon tike day wër ut programme bu ma animé man damay damay dem liggéey on a deux chemins différents moi je me lève je me lève à 5 heures du matin damay jàpp julli tëdd nelaw Ticket su ma bëggee woo téléphone 4 heures la may woo Ticket su ma bëggee woo 4 heures la may woo 4 heures du matin la may parce que xam na ni heure boobu du ma nelaw mais man ba heure laa ko jot téléphone à part 18 euh, heures bu yeewoo bokkuñu heure léegi koo bokkul heure nan ngay ànd ak moom xoolal heure bu baax bi les bonnes montres. les bonnes heures au bon moment les bonnes les les les les bonnes personnes à la bonne heure au bon moment nit da ànd ak koo xam ne yéen a bokk li ngeen di def nga ànd ak sa nawle loolu mooy nawle nawle du question que yaa ko gën yaa ko gënu kenn man gënuma fi kenn Tické gënul kenn man gënuma fi kenn mu ma gënul man gënuma ko ndax Sëñ Tuubaa sax dafa amoon lawbe kon Tické ku ko amul rek nee naa amoo leen dara mais man damay liggéey di di yeewu 6 heures du matin di tëdd une heure du matin ndax sama liggéey. moom muy yeewu di heures di wut programme est-ce que mën nañu ànd ànd boobu du am sincère mënul nekk man damay ànd ak ñuy liggéey ni man des femmes d'entreprise sont mes amies on parle martiqué bu on parle de quoi martiqué bu ñu toogee nan lañu waxtaan xew mi neexoon na kay waaw waaw yow diw kay man moo waxee waxu jàmbur loolu dafa may dugal après si jëw parce que programme yi muy dem ni mu fay gis peut mën na ma si expliquer dara te man intéressé wu ma man xew jàmbur na mu sol sa xew ma intéressé wu ma la ko jëkkëram may ci ndawtal intéressé wu ma la ko oto la ko jëkkëram may ci oto intéressé wu ma xam sama liggéey moo tax man dama nangu kenn dugal ma ci ay détails te comme hippopotame ak ticket coalition lañ def xam nga làngu noonu du tuuti fexe naa dugal ticket ticket moom daf la xamul dara bopp bi dara newu si comprendre sax sama réaction xam naa ne bu yeewoo bu ñu ko mën du ko comprendre mais xam naa ne bu toogee xel na am na xel bu toogee comprendre. na réfléchir bu réfléchir dina xam nabu mi kat li mu def noonu la parce que l'entourage lépp laa waaye kenn def desatu fi tout le monde je suis redevenu nabu seul bi ngeen xamoon ak yaayam ak jëkkëram man loolu moo ma jig ay ànd copine nii jiguma man aw ma copine aw ma xarit sama yaay ma sama copine ma sama xarit man ma amee copine ba tey dama am problème ma dugalee hippopotame sama vie ba tey dama am problème parce que dafa mën a dugal dafa a fen dafa mën a jax say nit la mélanger tout chez moi Donc, pour mon bien et le bien de mon mari, qui n'a pas le temps, c'est un ingénieur, je répète, je nettoie tout. sama jëkkër moo ma gënal ji sama jëkkër moo ma gënal téeméeri ticket lawbe sama jëkkër moo ma gënal téeméeri nen ne saw sama jëkkër moo ma gënal ku ma mënti am sama jëkkër moo la gënal maam jaara faam bii sax sama jëkkër moom ko gënal sama jëkkër moom gënal maam jaara faam sama sama jëkkër moom sax gënal sama yaay man na leer kuy ànd ak man boo sincère dama lay kaa nii ma la kaawee ni wax la li ma la xam yëpp dem sama yoon parce que da nga war a sincère aw ma temps dans la vie il faut être euh, perspicace et efficace kenn joxuma ma lekk kenn joxuma naan on ne veut pas c'est pour ça kenn joxuma ma lekk kenn joxuma ma naan man duma genre jigéen bi ñuy àndal nit bu pare ngeen yilif ma téye ma non eh. man je une chef d'entreprise je suis un leader moi ok un leader n'a pas besoin de troupeau de moutons le roi dans la ma ne la gaynde buy dox si si si si ànd ah, si gaynde buy dox moom cundum mooy ànd te man gaynde laa ragaluma dox man cundum ndax am naa ay gànnaay muy sama liggéeyu ndey ak sama xol ñaari gànnaay yi boo ko yooyu foo looy tiit looy tiit ku tiit dangaa ragal te ku ragal du jéggi raay xolal tige delluwaat ak sumbul bàcc li bu la Soumboulou bëggee accepter peut-être Soumboulou tamit bëggatul accepter affaire bi tamit yaa taa il faut réfléchir pourquoi Soumboulou kenn dégg ko ci peut-être Soumboulou moo pare ci Tické peut-être Tické moo war xoolaat boppam parce que Soumboulou mi ngi say sëyam ak Diop Khass te kenn dégg ko ci leen te sama référence la parce que mi ngi toog ba tey di sëy c'est comme ça euh, Soumboulou je suis nouvelle dans ton camp dans ton camp camp des nga may woo téléphone soxlu ma lay woo téléphone xam nga ma xam maa ngi ci sa camp ndax sooy célébrité lu ne ngay dégg mais xoolal teel rek euh, sa mbulu na laisse pas tomber sa juut ma teel ndax sa doom yi ngay jur la man yaa ma yoo xam ne yaa ma courage yow ak ndey gi yéen ma sama sëy gi na ma non na sa bi kii def la yab eh na ma yab na ma rey doom yi ma bëgg jur moo tax seen baay lu ma def maa tey damay toog sëy sëy fu ma jëm góor yëpp benn lan tous les hommes sont les mêmes façons les benn bant bi la bay dëgër rek waa mu tuuti te bi ma yor macha allah tubaab taala sew bon ok génn ma génn ma épisode Mame jaara Fam non en fait yow euh, yow tu es un satan parce que mam jaara Fam man nabu ak ni ma mel li ma rëy ak ni ma réew Mame Diarra rek rek rek rek rek rek moo mën ci man dara. amul beneen sénégalais bu mën si man dara bañ naa ko ba may jooy daw ma ci sama yaay de ci maam jaara femme laa dem kon ni ma ni ma fi ma rek sama yaay fu ko raw laa ko teg donc maman maam jaara ñi lay woon naa nabu dina la kaaw ak yëpp ay saytaane lañu say na senegal moo bëri ay saytaane moo tax fi mu ne nii seen seen kër yëpp taan rek nii yaay xoolal yaay yow yaay yow sama idool nga ba ma la koy wax boobu gisante wuñu rawatina ñu bokk PDS. nga sës si man sës si Karim Wade man jomm naa ñëw waxal la lu bon parce que xamuma ko ci yow déggoo ma yow sama sëy yaa ko defar kon seytaane yi di ngawti ngawti ngawti ngawti li ñoo bëgg am lu ñu xam te loolu xam leuse man chaque jour démb rek démb rek kër mama Mame Diarra laa nekkoon démb rek fa laa nekkoon démb rek man ak Mame ñoo nekkoon ak sama yaay ak sama jëkkër ñuy réconcilier problème bi man juboo naa démb pour muy clair sama jëkkër bàyyi na lépp mu sedd te maa ngi ko ciy gërëm di ko ci sant kon sénégalais yi information yi ngeen bëggoon erroné sëy bu ay mag tee sëy bu ay mag tee du gaaw a yàqu du gaaw a tas sëy bi sëñ Touba tee ak ci màggal gii ñu jëm neewoon naa sama sëy gi dénk naa ko sëñ Touba wala ma sama sëy gii dénk naa ko sëñ Touba ci barki 18 safar bii ñu jëm ak képp kuy kilifa dina nekk Touba ak sëñ Mountakha dénk naa sama sëy bi bul ma fàtte. léegi képp ku mën a yàq rek nga ne yéen a yàq rek moo leen neex ak wax ci wax ju ñaaw bàyyi naa la ak sëñ Touba bàyyi naa la ak sëñ Touba bàyyi naa la ak sëñ Touba bàyyi naa la ak sëñ Touba bàyyi naa la ak sëñ Touba bàyyi yoon sëñ Touba moo ma ne woon moo ne woon ku ma ku ma woo juróom-ñaari wuyu la ma wuyu si la kon man sama sëy gi bàyyi naa ko ak sëñ Touba bàyyi naa ko ak sëñ Touba bàyyi naa ko ak sëñ Touba bàyyi naa ko ak sëñ Touba bàyyi naa ko ak sëñ Touba bàyyi naa ko sëñ Touba bàyyi naa ko sëñ Touba du da ngeen a yàq rek ngeen loolu gis ngeen koy yàq yàq lañ sëñ Touba ngeen doon taxaw déggoo ma de ene comprendre loolu ma wan leen sama photo sëñ Touba bi ma def sa def defar bi ma defaral sama jëkkër sama kër yéen comprendre leen de sama sëy ki ma leen ko bàyyi bàyyi naa sama sëy bi ak borom Touba déggoo leen ma xanaa yéen yéen déen dé vous êtes malade vous xaa leen moo leen fi ki ma bàyyee seen Touba yéen vraiment ngeen comprendre cas bi waa bi fi ni cas moo changé sama sëy bi bàyyi naa ko kii sëñ bi bàyyi naa ak sama sëy dénk naa sama bopp dénk la yaaram bergaan nanga nga taxawee nii macha allah ak safar gi ñu jublu man yaa ma ci doy ndax ba ma toogee sama saal ne damaa bëgg jëkkëru murit yaa kii ma wuyu indi ma murit bi sama biir kër Bamba dénk naa la lépp dénk naa la sama bopp dénk la sama jëkkër dénk la sama xëj sama kër dénk la intiment déggoo ma de man gëm naa la de te duma murit sama jëkkër moo tax ma jël yoonu murit te dama ciy dem ba jeex dinaa ci bay lu ma mën dinaa si bay sama waar lu ma ci mën kenn dootuma ci raw déggoo ma de waa léegi yéen après pour ñu bëgg a yàq mën ngeen dem yàq sëñ bi mi ngi noonu il vous attend yéen rek.